du ko ñaanal sutura ak teranga ak waa këram ak saxaabam yëpp di nuyu mbokkum julit yi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñaari foo yooyu ngeen gis noonu mooy leçon bi tey jii toujours rek tabian la ndax léeg-léeg bindee bu guddee da koy benn benn di ko dagg-daggee ndax mu neex a dégg ci boo ko saraxee bu baax a baax a baax bind bële paase. bii moo ci topp moo nekkoon alwaqful jaiz yakunu ala ma yuaddi maanan saxihan mislu fawasili al ayat aw inda intihai maanan wa ibtidaa maanan axar لأن مراعاة المعنى هي الأصل في الوقف والابتداء كما قلنا لول مو نكون بن بل فاسي تاي نك بوبو مو انفاي موي ويوقف على الحرف الأخير بالسكون كما في معظم فواصل سورة الشعراء ak almaarij li ci mel nekk yooyu daal wa yuqifu ala alxarfi déedéet illa inda illa inda tanwin almansub fa yuqifu alayhi bil alif mislu yadxuluna fi din lay afwaja tawaba li ci mel nekk yooyu daal mislu jaza من ربك عطاء حسابا فهذه وأمثالها من التنوين المنسوب يوقف عليها بالألف الممدودة تقول ألم نجعل الأرض مهادا تقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخر السورة ومثل أفواجا والتوابا وحسابا وتقف عليها بالألف الممدودة laa bi tanwin wa huwa maddul iwad allati takallamna anhu fi lmudud su ko defee rek nee na wa yuqif day taxaw xalal xarfil axiir ci arafu mujj bi bu ciy taxaw daf koy def bi sukkuuni ci sukkuun naam boy xool masque bi du sukkuun mais comme da ngay taxaw da ngay arrêté da gaare dangay ngay sukkuun kama comme ni nga xamante ne boy xool fii mu zomi moo ëpp ci fawasili suurati zumar eh, aaya yi nekk ci suurati zumar teqantal yëpp booy xool li ci biir loolu jeexee ak suuratul maarij nga xamante ne aaya yi dafay faral jeexee nun bu ñu xëcc yooyu dafay faral jeexee nun kon mu nekk maddul aarid li sukun yooyu la mu ne kon illa lu muy def inda intihaa'i inda tanwini ci almansuur ci tanwin bi nga xamante ne dañ ko nasab mooy ñaari maski yi nga xamante ne ñaari fataha la ci kaw la nekk comme ban dan ran kan yu mel nekk yooyu mu ne fa yootu fa muy taxaw alayhi ci moom bil alif al alif ci alif maanaam bu fekkante ne am na tanwin rek du nekk marit madul arid li sukun mais da nekk eh, madul iwat kon li ci melni ke que rek tanwiinul mansub fa yuqifa alayhi muy taxawé ci mom bi alif ci alif mislu kom li melni ki kii a'udhu billahi minash shaitanir rajim da nga naan yadxuluuna fi dinillahi afwaja xam nga boobu mooy tanwiinul mansub tanwin bi nga xamantene dañ ko maske ñaari ñaari yat moy buñu nasab rek al mansub xam nga afwajan la mais boy taxaw afwaja mom ngay jël ومثل ak lu mel ne ki jazaan min rabbika ataan xisaaba li ko xisaaban mais xisaaba kon fa haasihi ayaat yi wa amsaaliha ak yu mel ne ki moom min a tanwin ci tanwin almansuub bu ñu nasab mu ne aaya yi ak yi ni mel min a tanwin almansuub ci tanwin bi nga xamante ne dañ ko masque masque nasbu mooy ñaari masque yoo xamante ne aw yat la mooy ñaari fata يوكف عليها دفنا كي تاهو بالالف الممدودة كي الف بني خج تقول دنيوة ألم نجعل الأرض مهادا لكم مهادا والجبال أوتادا ولا إلى آخر سورة بسار ويدية لنكو دفع من أنك ومثل أقلو ملنك بطي بيهول أفواجا tawaaba xisaaba yi yépp rek takifu alayha des na ci taxawee bil alifil mamduuda ci alif bu xëcc bi comme afwaaja tawaaba xisaaba mu ne laa bi tanwiin doo taxaw ci moom tanwiin comme afwaajan tawaaban xisaaban déedéet ñu ne waxuwa madd bi nag al maddul aad iwat mooy add bi nga xamante ne madd maddum iwat la ma madd xëcc xëcc weccoo weccoo dafa am li fi nekk mu nekk lu ne danga dangaaral mooy maske dan bi jan bi tawaaban bi xisaaban bi nga weccee ko nag ak benn masque boobu dañuy tuddee maddul ibatek mooy eh, xëcc bu weccoo weccoo mooy dafa am li fi nekk nga wecce ko leneen xam nga afwaajan tanwin la tawaaban tanwin la xisaaban tanwin la mais boo ko jàng di fa taxaw da ngay soppi tanwin bi def ko hecci rek alif bu kom hecc comme afwaja ñu ne ha comme tawaba ñu comme hisaba mota mu ne wa taqifu alayha bil alif al mamduda des na ci taxaw ci alif buñu hecc euh la bi tanwin du tanwin comme nimuko ko wo nii wa huwa madd boobu nag mooy la wat heccum weccho alladhi di hecc bi nga xamantene takallamna anhu anu wax nañ ci mom fil mududi ci hecc ya bañ cey tollu kon xam naa ne ba tey eh, dafay nekk taa suite ba tey matagul eh, leçon bi matagul dafa gudd bu matee rek incha allah ñu résumé ko parce que dafi dem dafa am solo lool mooy nga xam bu baax a baax eh, yow miy jàng alquran nga xam li ñu tuddee al waqfu al jais taxawin wu baax te dagan waaw parce que ñëpp a jàng alquran mais dafay gën a am solo boo jàngee bay tej wala bay dem yi beneen soxla fi ngay teg sa bant wala fi ngay teg buum bi war ko fa tëjee ñu tëjee ko foo xamante ne maanaam bu baax la maanaam fu mën a fu baax pour arrêter ñu bàyyi ci la allah su ko defee rek mbokk yi macha allah loolu mooy bind bi nga xamante ne teewlu nañ ko ci ak yéen di mardi bii comme ni koy far ko defee rek incha allah ngeen di topp leçon bu baax a baax di ko nafar ndax xam naa ne téere bi ñu nafaraat ko incha allah du ñàkk ñu def ay tamarin ay mbokk di ma jàmm indi la ay aaya ay yu ànd ak ay ay audio ma xool est macha allah njàngale bi am na njëriñ wala amul njëriñ wala am ñu koy toppala déet lool tamit bu amee dina ma dimbali lool ma gën a am cawarte indiwaat yeneen incha allah donte des fois ñu xat lool lool lool lool lool waaye lu ñu xat xat incha allah rek daañu fas yéene matali couleur googu ak yéen su ko defee kon di gërëm mbokk yi rek di leen wax kon ñu ci góorgóorlu bu baax a baax leçon yi yal na may may leen dënn bu yaatu ak nopp yoo xamante ne usunul waay yàlla yu mën a dégg waaye xel yu mën a capter su ko defee rek incha allah mu nekk jàmm yàlla boo xamante dañ koy neetoo sunu sunu diggante sunu borom ah, di ko neetoo sunu téere bu ñuy jàng ah, di ko jaamoo sunu borom it nag moom subhanahu wa taala hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin salim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh